waaw tey dañ ñëwoon fii ci Ndar donc ñëwoon xool si li nga xam ni mooy projet yi nga xam ni ministère des sports prévoir na ko fii ci Saint-Louis tey nag ñu ñëwoon ci site bi nga xam ni moom la ñuy wax site Xaar Yàlla nga xam ni mun naa ni c'est la nouvelle ville de Saint-Louis en extension te fii municipalité bi prévoir fii mën naa ni surtout 17 hectares fukki hectares ak juróom-ñaar pour mun a accueillir projet yi nga xam ne ministère des sports daf ko prévoir ci Ndar xam ngeen Ndar dafa nekk dëkk boo xam ni. ñëpp xam nañ ko dëkk bu bu am histoire bu am euh, mën naa ni euh, euh, histoire ci ci développe taarix ma ngoog ci sport mais également ci développement Sénégal mais ci mbiru sport ñaari champion yi ma mën naa ni ne sama wet rek wane na ko muy El Hadj Diouf ak Amara Traoré mais defe naa ni ñoom aussi seen liggéey ci biir Sénégal ak ci sport ñëpp xam nañ ko ba tax na ndar dañ ko prévoir ci lépp loo xam ne dañ ko yëkkati ji mu jëm ci sport dañ ci boole ndar donc nous avons ñun comme président de la république ci vision pour que ñu am sport ak développé il faut une infrastructure de qualité C'est mooy développer pratique sportive Nous avons aussi athlètes yi nekk dans de bonnes conditions d'épanouissement et de pratique sportive Nous tax mu Saint-Louis nous prévoir également complexe sportif qui est lié dañ la municipalité bi ak bi stade olympique stade bo un stade aux normes nous avons une compétition bu ñuy def ci aduna bi dañ ko donc c'est dans ce cadre que ñu prévoir stade de filles xam day remplacer stade Maître Babacar seigne stade bi nak dañu prévoir un stade de 15 000 places mais tay ak ambition bi Sénégal am organiser Coupe d'Afrique. donc en 2027 ak vraiment une compétition internationale nous bëgg mu 000 ci 15000 000, ba 000 à places Inshallah, rabbi benen bi euh, dañ fi prévoir ci côté stade bi ben palais des sports palais des sports nak dafa nek lo xamni dañ ko xalaatoon pour def ko dans chaque capitale régionale pour que les yenen disciplines muy sport de combat yi mais également muy natation ak yenen discipline basket handball meuna a am ay infrastructures yo xamni ne nekk aux normes palais des sports bi loolu la prévoir donc vraiment complexe bu mag la On nañ sax ba ci ay hôtel mais dañ koy phasé dans un premier temps dañuy def stade bi donc def palais des sports bi dougal piste d'athlétisme, yek salle sport de de salle yek prévoir ko ba tax na projet de base bi biñ ko euh, lancé won def appel d'offres yi 17 milliards la won mais tay ak ambition yi ñu am pour vraiment comme ni mo wax ñu positionner Saint-Louis pour ay Coupe d'Afrique yi di ñëw ak ak yenen yëpp yi nga xamni bëgg nañ Saint-Louis abrité ko projet bi dinañ ko revoir mais en tout cas projet de base bi 17 milliards yi commencé won nañ ba état bi joxawon na sax avance c'est pour dire simplement que su fekkente ni paré nañu étude géotechnique yi moy souf si ni mel ak euh, peut-être xorom sék yoy nuñ suñ ko étudier ba paré

nous un diligente projet yi réaliser ko motax ñu terrain bi les acteurs pour que le président bëgg pour le projet à temps ñu ko def donc Nous ñu ngi ciy aussi gouverneur ak préfet ak chef de service puis yi nga xam dañuy ministère yi ci suivi rapproché projet yi nga xam ni état bi mu koy def terrain bi. Sané je peux dire que c'est je peux même dire deux Sénégalais parce que le roi Sané a ses origines sénégalaises c'est le fils de Soleiman Sané, que j'ai eu lors de ma visite à Sadio Mané, d'ailleurs à Munich. On, avait longuement échangé, je lui avais fait part, donc grâce à El Adjoub d'ailleurs, donc je lui avais fait part donc, de ma visite à Sadio Mané pour aller l'encourager au nom du chef de l'État, du peuple sénégalais, suite à sa blessure. Et il m'avait vraiment, euh, il était vraiment très satisfait de ce geste, mais également m'avait demandé de transmettre à Sadio, qui est son fils, ses encouragements. Et le roi Sani doit savoir que c'est un cousin à Sadio Mané. Donc c'est vraiment deux compatriotes. Et Sadio, vraiment, après, il m'a appelé. Il m'a longuement expliqué l'histoire. Et aujourd'hui, on peut considérer que c'est une histoire close qui est derrière nous. Vraiment, je ne vais pas revenir sur les détails, mais il m'a expliqué tout ce qui s'est passé. Mais il n'a jamais été fautif. Qui connaît Sadio Mané sait que Sadio n'est pas quelqu'un de violent, n'est pas quelqu'un vraiment d'agité, c'est quelqu'un de très correct très poli, très courtois. Mais ce qui s'est passé, vraiment, il m'a expliqué et le roi lui-même s'en est revenu. Donc il est venu le voir, ils ont discuté entre frères, ils ont vraiment, je peux dire, enterré cette affaire et c'est maintenant derrière nous. Continuons de prier pour eux, pour Sadio Mané, pour qu'il retrouve sa forme, mais également qu'il retrouve ses performances en club et en Allemagne et pour le Sénégal.